askanu yanqooba ñaar saar ñeent fukk yanqooba dem na misra israel nag dem yóbbaale mbooleem lu bokk ci moom ba mu agsee berseba dafa saraxal yàllay baayam isaaxa yàlla wax ak israel foofa ca guddi ci biir gént ne ko yanqooba yanqooba israel ne ko naam yàlla ne ko man maay yàlla di sa yàllay baay bul ragal a dem misra ndaxte askan wu rëy laa fay sose ci yow man ci sama bopp maay ànd ak yow misra te na la wóor ne dinaa la delloosi te it yuusufa moo lay doggali ba loolu amee yanqooba jóge berseba doomu israel boole seen baay ak seeni doom ak seeni soxna yeb leen ci watiir yi firaaw na yónnee woon ngir yóbbu leen nga jiital seeni jur daldi yóbbaale seen alal jañu amee réewu kanaan noonu yanqooba dem misra ànd njabootam gépp yóbbaale doomam yu góor ya ak yu góor ya ak doomam yu jigéen ya it yu jigéen ya ak mboolem ña askanoo ca moom njabootu yanqooba gi ñëw misra waa kër israel yi ñëw misra te di yanqooba ak i doomam seeni tura di ruben taawub yanqooba doomu ruben yu góor di anok ak palu ak esron ak karmi doomi simeyon yu góor di yemuwel ak yamin ak owadd ak yakin ak sowar ak sawul mi ndeyam di kananeen doomi lewi yu góor di gerson keyat ak merari doomi yuda yu góor di er ak onan ak sela ak peres ak sera te er ak onan faatu ca réewu kanaan doomi peres yu góor di esron ak amul doomi isakaar yu góor di tola ak puwa ak yasub ak simron doomi sabulon yu góor di sered elon ak yaleel góor ñoo ñoo xeetoo ci leya te askanoo ci ba ca padan aram gannaaw diina miy doomam ju jigéen boo boolee doomam yépp góor ak jigéen ñuy fanweer ak ñett doomi gàdd yu góor ñoo di sefon ak agi ak suni ak esbon ak eri ak arodi ak areli doomi aser yu góor di yimna ak yiswa ak yiswi ak beriya sera di seen jigéen doomi beriya yu góor di eber ak malkiyel góor ñooñoo xeetoo ci silpa mi laban doomam ju jigéen te ñu askanoo ci yanqooba ñu fukki bakkan ak juróom doom yu góor yi rasel soxna si yanqooba am nag ñoo di yuusufa ak benyamin yuusufa itam am manase ak efrayim ca réewu misra seen yaay di asnaat doomu potifera may njiitu diine ca dëkk ba ñu naan on doomi benyamin yu góor ñoo di bela ak beker ak asbel ak gera ak naaman ak eyi ak ros ak muppim ak uppim ak ard góor ñoo ñooñoo xeetoo ci rasel te askanoo ci ba ñépp di fukki bakkan ak ñeent doomu dan yu góor di usim doomi naftali yu góor di yaseel ak guni ak yeser ak silem góor ñoo ñooñoo xeetoo ci bilaa mi laban may doomam rasel te ñu askanoo ci yanqooba ñoom ñépp di juróom ñaari bakkan mboolem ñi ànd ak ba ñëw misra muy ñi mu giir te limaaleesul soxnay doomu ba ya toll nañu ci juróom benn fukki bakkan ak juróom benn doomi yuusufa yu góor ya mu am misra toll ci ñaar kon mboolem ña dem misra te di waa kër ba tollu nañu ci juróom ñaar fukk yanqooba gis na yuusufa yanqooba dafa yabal yuda mu ànd ak yuusufa jiitu ji ko diwaanu gosen yanqooba fekki leen fa noonu ñu agsi gosen yuusufa nag waajal waruwaayam daje ji ak baayam israel ca gosen ba yuusufa àggee ba ca moom da ko laxasu ne ñàpp ci kawam jooy lu yàgg israyil ne yuusufa léegi de bu ma yeboo dee gannaaw gisaat naa la ngay dund ba mu ko defee yuusufa wax ay doomi baayam ya ak waa kër baayam ne leen maa ngi dellu yëgali firaw ne ne ko samay bokk ak sama waa kër baay ña nekkoon ci réewu kanaan ñëw nañu fi man dafa di seeni góor ay sàmm lañu ak jur lañu mës a yar te indaale nañu seen jur gu gàtt ak gu gudd ak mboolem lu ñu moom kon bu leen firaaw na woowee ne leen lan mooy seen liggéey ngeen ne ko nun de sang bi ak jur lanu mës a yar ba nuy gone ba tey te noonu la ko sunuy maam daan defe su boobaa ngeen mën a féetewoo diiwaanu gosen ndaxte waa misra dañuy xof sàmm saar ñeent fukk ak juróom ay mbokkam firawna yusufa daa dem ca firawna wax ko ne ko sama baay ak samay bokk jóge nañu kanaan ànd ak seen jur gu gàtt ak gu gudd ak mboolem lu ñu moom ña nga léegi ca diiwaanu gosen fekk na yuusufa tànn juróom ci doomi baayam noonu mu nuyoole leen ak firawna na laaj doomi baay ya ne leen lan mooy seen liggéey ñu ne ko nun de sang bi ay sàmm lanu naka jekk ca sunuy maam ba tey ñu teg ca ne ko danoo ñëw ngir dal ci réew mi ndaxte amalatunu sunu jur parlu te xiif bi metti na ca réewu kanaan moo tax sang bi nu di la ñaan nga maynu nu nu dal foofa ca diiwaanu gosen na wax ak yuusufa ne ko gannaaw sa baay ak say bokk ñëw nañu fi yow réew misra ngi ci sa kanam seetal fi gën ci réew mi nga jox sa baay ak say bokk ñu sanc bàyyi leen ñu sanc gosen te bu ci amee ñu xareñ ci ñoom nga dénk leen samay gétt gannaaw loolu yuusufa ànd ak baayam ba fa na nuyoole ko ak moom yanqooba nuyu firawna firawna laaj yanqooba ne ko ah góor gi xanaa war ngaa doon mag de ba wax na ne ko samay ati màngaan ba ma gane àddina ba tey de mu ngi tollu ci téeméer ak fanweer muy at yu gàtt te naqari te it demuma bay tolloo ay at ak samay maam ba ñuy màngaan ci àddina ba mu ko defee ba ñaanal na bàyyi koo fa daldi dem yuusufa nag dalal baayam ak dogal leen suuf sa gën ca réewu misra ca diiwaanu ramses ni ko ko firawna sante woon ba loolu amee yuusufa di dundal baayam ak i bokkam ak mboolem waa kër baayam boole ca ña bootu ca ñoom lu jëm ci saytub yuusufa ca xiif ba ab dund amuloon fenn ci réew ma mépp xiif bu metti lool waa misra ak réewu kanaan jeex tàkk ndax xiif ba noonu yuusufa dajale ca pepp ma muy jaay waa misra ak waa kanaan mboolem xaalisu ñaari réew ya yóbbu nag xaalis ba kër na ba ñu demee ba xaalis amatul ca misra ak ca kanaan waa misra gépp ñëw fa yuusufa ne ko jox nu ab dund kay mbaadu danga nuy seetaan nuy dee ndax xaalis amatul yuusufa ne leen indi leen seeni jur ma wecci leen ko dund ndegam amatu leen xaalis gannaaw loolu ñu indil yuusufa seeni jur yuusufa jox leen ko pepp wecci leen ko seeni fas ak seeni gétti jur gu gàtt ak gu gudd ak seeni mbaam at mooma jox na leen ab dund mu wecci seen gétt gépp ba at ma jeexee ñu ñëwaat ca moom ca déwén sa ne ko sang bi dunu la nëbb ne amatunu dara ndax xaalis bi jeex na te jur gaa ngi ci yow dara nekkatu fi lu nu la mën a jox lu moy sunuy jëmm ak sunuy tool mbaadu danga nuy seetaan nu bokk sànku ci sa kanam noog sunu suuf nga la boole nu jënde ab dund nun ak sunuy suuf su ko defee nuy moomeeli na nun ak sunuy suuf te nga jox nu pepp mu nu dunde lu ko mooy kat nun dinanu dee suuf si dina booy yusufa nag jëndal na suufas misra gépp ngir waa misra ya jaay ku ci nekk sa tool ndax xiif ba leen jiital ba na mujj moom suuf si waa réew ma ñoom yusufa da leen a def ay jaam ca misra giiwet ba gaa bàyyiwul lu may suufu njiiti diine ya ndax Firawna jotoon na leen a dogal ay cër jagleel leen moo tax jaayuñu seeni suuf yusufa ne waa réew ma léegi gannaaw jënd naa leen ba na moom leen yéen ak seeni suuf jiwoo ngi dem leen jiwi bu nu àggee ci ngóob juróom yu ngeen am dingeen ci jox na benn te féetewoo ñeenti cër yi des su ko defee ngeen génne ci jiwi tool yi li ci des ngeen dunde yéen ak seen waa kër ak seeni doom ñu ne ko sang bi rawale nga nu te gannaaw laaye nga biir nangu nanu doon jaami na noonu la Yuusufa tërale loola def ko dogalu yoon ca suufu Misra te loolooy wéy ba tey jii juróomi cëri meññeef mu ne firawnaay moom benn ba waaye suufu njiiti diine ya ca bokkul firaw na amu ca dara jëm ci ati yanxooba yu mujj ya banni israel nañu réewu misra ca diiwaanu gosen am nañu fa alal giir fa ba yokku lool yanxooba nag nekk na fukki at ak misra ay atam yépp toll ci téeméer ak ba nga xamee ne àpp Israyil a ngay bëgg a mat dafa woolu doomam Yuusufa ne ko ngalawaay dugalal sa loxo mu ron sama lupp muy ngiñ ci yow ne doo fecc sama kóllëre ak yow dama lay ñaan bu ma denc misra bés bu ma fekk jee samay maam nanga ma jële misra denc ma ca seen xabru yuusufa ne ko dinaa la defal li nga wax mu ne ko giñal ma ko yusufa giñ ko israyil door am jàmm daldi wéeru ca bopp lal ba saar ñeent fukk ak juróom ñett israyil ñaanal na efrayim ak manase ba loolu wéyee ñu ne yuusufa baayam dafa tawat mu ànd ak ñaari doomam manase ak efrayim seeti ko ba ñu yégalee yanqoo ba ne doomam yuusufaa koy seetsi israyil dafa dëgërulu toog ca lal ba yanqooba ne yusufa yàlla buur bi feeñu woon na ma ca lus ca réewu kanaan barkeel ma te wax na ma ne ma dinaa la giiral fulandi la def la nga sos mbooloom xeet te réew mii laay may ñi askanoo ci yow ñu moom ko faw léegi nag sa ñaari doom yi nga am misra laata ma di la fekk ci misra maa leen séddoo maay seddoo efraim ak manase ñuy samay doom ni ma jure Ruben ak Simeyon waaye doom yi nga am seen gannaaw yaa leen di féetewoo ñuy wuyoo seen turi mag ci wàllu ndono li tax ma def loolu mooy bi ma jógee Padan di ñibbi Rasel dafa faatu ca yoon wa ci sama kanam ba nuy tollu ca réewu Kanaan boobu nu ngay dem bay jub Efrata ma suul ko foofa ca yoonu Efrata efrata mooy betleyem tey noonu israel gis doomi yuusufa ya mu ne ñi ñooy ñan yuusufa ne baayam ñii ñooy sama doom yi ma yàlla jox fii baayam ne ko nañu jege si ma ñaanal leen booba bëti israel dafa lëndëm ba gisatul ndax li muy mag yuusufa jegañal leen seen maam mu fóon leen taf leen ci boppam Israyil nag ne Yuusufa yaakaaruma la woon a gisati ndeke yàlla dina ma may lu raw gis la ndax gis naa say doom ca la leen Yuusufa wàccee fi ñu uufu ci seen maam daldi dëpp jëwam ci suuf ba noppi Yuusufa taxawal leen ñoom ñaar ñu séq ko janook Israyil loxol ndijooram jàpp ci Efrayim mu féete ak càmmooñu Israyil loxol càmmooñam jàpp ci Manase mu féete ak ndijooru Israyil ñu ànd jege si waaye Israyil jàllawle ay loxoom tàllal ndijooram teg ko ca kaw boppu Efraim mi gën di ndaw càmmooñam tege ca boppu Manase doonte mooy taaw ma ngay ñaanal Yuusufa mu ne yàlla ji samay waajur Ibrahima ak Isaaxa toppoon moom yàlla ji ma sàmm ba ma juddoo ba tey jii malaaka mi ma jot ci bépp loraange yàlla na barkeel xale yi ba ñu saxal sama tur ak samay turi waajur Ibrahima ak Isaaxa te giir ba ne gàññ ci kaw suuf ba yuusufa gisee ne baayam ca boppu Efrayim la teg loxol ndijooram mu naqari ko mu daldi jàpp loxol baayam bëgg koo jële ca boppu Efrayim teg ko ca bopp Manase yuusufa ne baayam déet baay ndax kii mooy taaw tegal sa ndijoor ci boppam waaye baayam bañ ne ko xam naa ko doom xam naa ko moom itam dina doon aw xeet tey doon ku màgg waaye rakkam a koy sut te askanam dina law ba di ay xeet gannaaw loolu mu ñaanal leen keroog ne leen yàlla na Israël di ñaane seeni turnaan yal na la yàlla def ni efrayim ak manase noonu la jiitale efrayim door caa teg manase ba mu ko defee israel ne yuusufa léegi man dinaa dee waaye yàlla dina ànd ak yéen ba delloo leen ca seen réewu maam man nag dinaa la may cër booy ëppale say doomi baay muy suuf su ma nangoo sama saamar ak sama fitt ca amoreen ña saa ñeent fukk ak juróom tàggoo na gannaaw loolu yanqooba woo ay doomam neleen leen bokk leen daje ma xamal leen li leen di dikkal ëllëg daje leen te déglu ma man yanqooba seen baay teewlu leen seen baay Israyil Ruben yow mi ma taawloo nga sosoo sama digg doole sama ndorteel kàttan yaa jëkke sut moos ci teraanga ak doole yaa tooga it ni ndox muy walwali doo mujj sut nde tëdd sa lalu baay ba tedd di ba nga ca tëddee simeyon ak lewi ñoo duwe yene ñooy nas pexey ay yàlla bu sama xol ànd ci seeni pexe mbaa sama xel di nangu seeni diisoo ndax fu ñu mere xalfa boome te làggal ay yëkk lañuy foye mbas ma seen xadar gu tar ak seen mer mu mudul meddi maa leen di wasaare ci kër ba tasaare leen ci Israël yow yuda di tàgge ji nga sëqi sa ndod di noon sëgal leen sa doomi bàyyi lay sujootal yuda yaa di gaynde gu ndaw doom dooro jóge nii ci pàdd te yuuga ka yoor ni gaynde sibi yaa di gaynde gu deesul yee nguur gi du jóge ci loxol yuda te yetu buuray wee sampe ci tànkam li fekk boroom di ñëw ba xeet yi déggal ko mooy yeew mbaamam ci reseñ cumbul ma féeteeg car ba ca gën muy fóote ay yéreem biiñ di sumb mbubbam ci ndoxum reseñ bët yaa ngay nes ne si ndax biiñ ba ñi weex fur ndaxum soow sabuloonay dëkki tefe si géej di teerub gaal yi am réewam digaloog sidon isakaar mbaam ngonk la muy goor diggante ñaari sëf bu gisee ni mbaaram neexe ak ni réew mi naate day waaf gàddu nga daldi féetewoo coonab njaam danay àtte ji xeetam ni ko giiri Israyil baaxoo waaye danay jaan ju dogu yoon mbaa ceebi ciw ñall mooy matt tànki fas gawar ju luutu tey aji sax ji maa ngi séentu sa xettal gàdd la gàngoor di gaw waaye mu téqatal leen ba daan asarey boroom dund bu duun mooy maye nga neeli ñami buur neftale di kéwél gu fëx te mooy jur doom yu taaru yusufaay banqaasu garab garab guy meññ feggoog bëtu ndox car yaa ngalaw tiim diggu tool ba ay fittikat a ko toŋal di ko song ak a fit waaye xalaam nga di wéye dang te la loxo yay dëgërloo mooy loxo yi boroom kàttan boobee di yàlla yanqooba kookooy sàmm biy doju ci slayel israel mooy sa yàllay baay ji lay wallu mooy aji man ji lay barkeele ca barkay asamaan ya fa kaw ak barka ne lew ca suuf xóote ya teg ca barkeb njur ak nàmpal sa ñaani baay ya romb xéewali tund ya sax faw rombati ngëneeli jànj cosaan ya yàlla na dal ci bopp yuusufa ca kaw ndaal boppam moom sangub doomi baayam ya beñaminay till gu yeeroo di xëye yàpp rëbam tey loo séddale am lëlëm ñooñu ñoo sos mboolem giiri Israël ñu toll ci fukk ak ñaar te loolu la leen seen baay wax ba mu leen di tàggu ku ci nekk mu tàggoo ko kàdduy tàggatoo yawar ca moom ba nelaw na gannaaw loolu da leen a dénk ne leen maa ngi waaja fekki samay maam denc leen ma fa samay maam ca xabru ba ca tollu efron eteen ba mooy xablu ba ca biir tool ba ca Makpela te jàkkaarloo ak Mamre ca réewu Kanaan di tool ba Ibrahima jëndoon ca Efron ëtteen ba ngir def ko bàmmeel foofa lañu denc Ibrahima ak soxnaam Saarata te foofa lañu denc Isaaxa ak soxnaam Rebeka te fa laa denc Leya it tool ba ak xablu ba ca nekk ña nga ko jënd ca ëtteen ña naka la ba dénku doomam yu góor ya noona daldi delloo ay tànkam ca lal ba bakkan ba rot mu fekki ay maamam saar juróom fukk réewu Kanaan ba mu ko defee yuusufa daanu ci kaw baayam ma ngay jooy te di ko fóon ba loolu weesoo yuusufa jox ay fajkatam ndigal ñu waajal baayam fajkat yee waajal Israël waaj ma am na ñeent fukki fan ndaxte loolooy waajal bu mat sëkk cib néew waa misra nag dëjal ko juróom-ñaar fukki fan ba dëj ba weesoo yusufa dafa wax ak waa kër na ñaan leen ñu dimbali ko waxal ko na ne ko baayam dane woon mu ngi waaj a dee waaye xabru ba mu yettaloon boppam ca réew kanaan na ko giñal ne dina ko denc foofa mu ne kon na ko firaaw na may mu robi baayam ni mu ko ko giñloo woon te dellusi firaaw na may ko mu robi baayam na mu ko ko giñloo woon yuusuf faa ngay dem robi baayam moom ak mboolem jawriñu firaaw na ak magi këram ak mbooleem kàngami misra ña nga ànd ak waa kër yuusufa gépp ak ay doomi baayam ak waa kër baayam bàyyiwuñu diiwaanu gosen lu moy xale ya ak gàtt ya ak jur gu gudd ga ay watiir ak i gawar topp ca ñu def gàngoor gu rëy ba ñu agsee ca dàggay ataat ja ca wàllaa dexu yurdaan dañu ko jooy jooy yu rëy te metti yuusufa dëjal fa baayam diiru juróom-ñaari fan waa réewu kanaan gis dëj ba ca dàggay ataat naan dëju waa bii ak moo tax ñu tudde béréb booba ca wàllaa dexu yurdaan abel misra loolu di tekki dëju waa misra noonu doomu yanqooba ya def la leen seen baay dénkoon yóbbu ko ci réewu kanaan daldi koy rob ca xabru ba ca toolu Makpela te Ibrahima jëndoon ko ci Efron ëttéen ba ngir def ko bàmmeel mooy tool ba jàkkaarloo ak Mamre ba yuusufa dencee baayam ba noppi dafa dellu misra moom ak doomi baayam ya ak mboolem ña mu àndaloon ca rabu baayam magi yuusufa yaa ngi jéggalu magi yuusufa ya xam nañu ne seen baay nelaw na ña ngay wax ca seen biir naan waaw mbaa yuusufa dencalu nu mer nar noo fay sunu bor ndax lu bon li nu ko jiwoon lépp boobu lañu yóbbante yuusufa kàddu yi di ko wax ne ko sa baay dafa noo dénkoon bala moo nelaw nenu wax leen yuusufa ne ko sa baay ne say mag def nañu la lu bon moos waaye ngalla baal leen seeni tooñ ak àq gi ñu la ameel kon rikkwaay baal nu àq ndax nun noog sa baay bokk jenn yàlla ju nuy jaamu ba ñu waxee yuusufa loolu mu daldi jooy ci kaw loolu magam ya ñëwal seen bopp ba ca moom su jóotal ko ne ko sang bi nu ngi nii di la siyaare waaye yuusufa ne leen bu leen am dara lu ngeen di ragal xanaa maa yàlla dëgg la fexeel ngeen ma lu bon waaye yàlla wëlbati na ko def ko lu baax ba dogal li am tey jii muy bakkan yu bare yu mucc kon nag bu leen tiit dinaa leen yor yéen ak seeni doom yooyu kàddu la dalale seen xol ba ñu am jàmm yusufa nelaw na yusufa dëkk na misra moom ak waa kër baayam ñépp ba toll ci téeméeri atam ak fukk te gis na doomi efrayim ba gis sëti efrayim sax rax ca dolli doomi makir mi manase jur fa kanamam lañu mu am bés yusufa ne ay bokkam sama waxtu jege na waaye yàlla dina leen jël si moos ba jële leen ci réew mii yóbbuleen ca réew ma mu dige woon ba giñal ko Ibrahima Isaaxa ak Yanqoba booba la Yuusufa wax doomi Israyil ne leen giñal leen ma ne bés bu leen yàlla jël see dingeen yóbbaale samay yax waaye du ngeen ma fi bàyyi noonu yuusufa nelaw ci téeméeri atam ak fukk ñu waajal néew ba ba du yàqu daldi ko yeb cib tàdd denc ko foofa ca misra